yëpp dañuy deuxième tour kenn rek moo ci wax premier tour ndax loolu mënul tey xel. balay boobu damay euh, rectifier sama xarit ojo bi mu dégg maa ngi génn ci sëñ Bab sëñ sëñ Babacar si te Macky Sall waxul ni faaw ñu gagné 57 pour cent maa ngi nangu it ni que ni Macky sàll nee na ñun ñëpp daf ñu soññ ni ñu effectivement expérience montré na en Afrique candidat bu dem deuxième tour nekk un candidat sortant da am ay jafe-jafe. kon na ngeen góor ba ñu gagné premier tour loolu dëgg la. Hmm. lu am la waaye mësul wax ni que ni kon cinquante pour sept cent yi nañ ko dëgëral loolu mësul am bi ci des. Hmm. mooy comprendre na ñeenti candidat yëpp waroo ak li Macky Sall wax ndax élection yi nekkul woon élection wu euh, cinq candidats non dafa nekkoon élection wu benn candidat contre un groupe de quatre candidats donc un groupe de quatre candidats. c'est normal que seen wax nekk benn. loolu ce n'est pas problème am na ku muy wax ku mu lim góor gu mag goo xam ni maa ngi ñaareel yàlla yàlla gën a guddal fanam gën ko bàyyi ci euh, askan wi. ndax liggéeyal na Sénégal loo xam ni kenn du ko natable. waaye maa ngi ñaan yàlla it yal na ko yàlla delloo xelam. ci mu xam ni at yi mu am dafa laaj mu toog ci si siyaadaam yor kurusam di ñaanal jàmm senegal may xam ni sama xarit Cheikh. mais dafa bokkoon xëy na tey de lay andi li mu ko waxu kooku waaye le 23 juin moom mii bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo toogoon di xeex di xeex que muy lim moom mi le 23 juin xëy na nag ci diggante bi bëgg-bëgg yeeg euh, fi ñu féeteeg yooyu mën na am mu andi coppite ci xalaat gi kon man nekkuma di commenter waxu mag moo xam ni ormal rek laa ko waral te dama nekk di nga xam ni di wax li nga xam ni mooy les faits les fee mooy lan. mooy Macky Sall effectivement. ak PV yu baaxul yi. ma ba man bu fekkee ni xam nga loolu loolu sama xarit Cheikh wa dafa graaw grawul ci ñun de mais dafa dafa nekk loo xam ni dafay ñàkk ormal ña leen représenté ci bureau de vote yi ndax ñooñu ñu xarañ lañu am nañ am na ay ay doomu aadama yoo xam ni ñoo toogaloon seen i candidat añiwuñu si suba ba ngoon kon ñooñu bu fekkee ni ñoom kenn déggu leen. kenn ci ñoom amul kenn ku ñu dégg ku siège bi bureau de vote boo xam ni dégg na benn résultat bu ñu joxe mu ni résultat bi si wu ma ko kon moom ma nga xam ni nekkul woon ca bureau de vote yi bàyyi ñooñee nga xam ni dañ faa yendu suba ba ngoon te ñu bu toogee naan leen que PV yi ñu joxe ay PV fictif la man kooku digganteem la ak ñoo ñooñu toogal leneen foofu man li nga xam ne moom laa xam mooy PV ñu ni ñu am yépp mooy PV bu ci nekk ñi nga xam ni ñoom ñoom la ñu tànnoon. óolu leen ñu toogal leen fa te ñu ormal leen seen signature moo fa nekk bu dee nag ñoom gis nañu PV yoo xam ni signature yu ñooñu nekkuñu fa ngir ci seen xalaat càgganteeg ñooñu ak seen ñàkk xarañ ak seen ñàkk kóolu ñu leen óolu kooku seen diggante ak ñoom la waaye ñun pare nañu pour ñu génne PV yooyu ñëw indi ko seen télévision bi wane ko. Mhm. ma PV yi moom am na keneen ku ko war a wane sax ku dul ñun mhm. ñun li ñu mën def rek mooy wax li ñu gis ci tendance yi waaye wane ay PV moom am na ñoo xam ni moom lañ ko gën a cërale euh, am na ci loo xam ne Cheikh man mën naa la ko laaj avant may dugg ci question boo xam dafay kii yéen a ngi wax deuxième tour ci seen biir mhm. mais est-ce que amul leneen ñii dañuy xalaat ni Idrissa la mën a doon ñii xalaat ni Ousmane Sonko la mën a doon ndax loolu rek lañ réglé ngeen ko waaw je pense que lu ñu réglé la parce que bu ñu ko Ousmane Sonko du woo Idriss Seck. yaakaar nga lu ñu réglé la ba mu fete ba. nañu def conférence conjointe pour wax ko. li am solo mooy réew mi ak taxawaayu réew mi ëllëg ku mu ci mënti doon. waaw mais li am solo itam xamul mën nañu dem deuxième tour mu am euh, beneen affaire bu ci am parce que ni ngeen jàppee ni Idrissa Seck la mais am na ñu xam ni itam jàpp nañ ne Ousmane Sonko mën na ko raw. mais loolu yëpp kayit yi moo koy firndeel. te ñun ci kayit yi ñu am. jàpp nañu ni Idrissa Seck moo ñëw en deuxième position. bien que moog Sonko am na écart quand bu ñu gis mais loolu yëpp defe naa nu di débat bi débat bi fi ñu toll nii. Ah, non nekkagul débat bi. nekkagul débat d'accord fi ñu toll nii nekk débat mooy deuxième tour mënul ñàkk bañ a am ci élection yi. li mu wax léegi ni Macky Sall moo ko wax. ñëpp dégg nañ ko. que ni président sortant bu dem. deuxième tour dañ lay so so galgal la nga daanu loolu rek laa firndeel mais 57 pour cent yi bu ko waxul it wax loo na ko wolof day naan naar bu ndaw lu mu wax. Mhm. ca xayma ba la ko dégg. Mhm. le premier ministre bi wax moo xam premier casquette premier ministre la sol wala moo xam casquette euh, président comité électoral la benn nit ki la rek. Mhm. moo tax bu mu ko waxee bari na ñoo xam ne rafetlu wu ñu wax. rajo yi ko wax aussi ak tele yi ko wax rafetlu wu ñu wax ji parce que du seen cër du seen taxawaay. man démb maa ngi woo représentant euh, RFI. di ko wax ni koy li wax yi ngay wax fan nga ko jëlee ak foo ko teg. da nga am compilation. mu ne la waxuma ko mu ne la waxuma ko non waxul kon xam nga télé ak rajo dañ leen waxal lu ñu waxul. c'est c'est dañ leen waxal lu waxul. donc dañ leen waxal loo xam du dëgg. bëgg leen jaxase aussi ak askan bi dégg nga ni ko ni nga xam ne noonu la ko RFM euh, weddee dégg nga ni ko TFM weddee dégg ni ko RFI weddee mm-hmm. donc yaakaar naa ni aussi loolu lu ñu war a mën a xool la mais boo amee aussi boo nekkee kilifa aussi booy waxal rajo yi wala télévision da nga leen war a waxal luy dëgg non du du bi sax xëy na ñàkkul ci ñiy liggéey ci ñooñu kenn ci ñoom ci njuumte mu àgg ba fenn fi mm-hmm. te bu amee aussi doomu aadama rek mën na jéggulu ni yenn ni jubluwuma ci woon loolu mm-hmm. mais dégg-dégg boobu la ci nit ñi di mais li wóor moom mooy di gis ngeen ñu sax ay département la fa vote ci nit ëpp na fuuf la waroon voté ci bureau yi. comme fan par exemple. merci wax naa la léegi fu mel ni podoor mhm. Podor nan la mën amee plus de deux mille deux cent mille de déedéet nañu wax ni Podor nangam la waroon nangam ma fa nekkoon ak nangam ma voté ndax dama bëgg mu leer rek ci population bi ah. Mhm. nan la mën a am plus de deux cent mille électeurs c'est pas possible ñaareelu affaire bi ma ci bëgg wax te sama xarit bi génn ko léegi waxuma bureau yoo xam ni ay représentants parti yi ña nga fa ñu fabrique mais xam nga ni parti au pouvoir bokkul ak parti d'opposition nañ ko wax nag te de am na ci gox yu sori soriyaa yoo xam ni benn représentant parti yi doon compétir nekku fa ñoom doomu ñoo fa nekkoon ak membre bureau bi mais foofu def nañ fa ay bourrage def fa yoo xam ni yu ëpp dayoo yoo comme ni kenn nekk fa noo xam ni def nañ ko fa yow xam nga ni yow nekkuloo fa sa représentant nekk fa nan nga mun a xamee ni def nañ ko bourrage hmm. na ma gë ma xamee ni xam def nañ ko parce que dama am ay image yoo xam ni dañ ne ay xale yu ndaw yoo xam ni dañuy jël foo sax lañ ko doon def. di jël enveloppe ji jël bulletin dugal ci biir def di jaabati dem ak ñu. mais loolu bëgg naa ñu woon d'accord loolu loolu am na solo trop déedéet ba xam nga boo yëkkatee téléphone wax maa ngi bëgg jàkkaarloog euh, téléspectateur yëpp di wax taxaw sama bàmmeel. Mhm. nañu wone xale bu tuuti bu amul âge de ñu wone ko muy dugal. bulletin ci urne bi. léegi léegi léegi mais xam nga ne loolu loolu dafa jëf ñu jëlal temps comme ni nga doon bëgg a sa image. waaw waaw c'est ça baal ma rek Cheikh nga eggale li nga doon wax en attendant ñu ñu. bu ñu prochaine bu ñu la démocratie mon ami jombul di ko mën a wan. mais ça existe. waaw mi nii Pamel boo bëggee ma la ko billahi wallahi. j'aimerais bien en dehors de l'émission nga wan ko et je serai le premier à le combattre de bu dul montage fa mbaxane doon benn ba ko mu égalee s'il vous plaît ñu annulé PV yooyu parce que dëppawul ak démocratie dëppawul ak taxawaayu démocratie mhm. dama bëgg wax rek suñu réew réew la bu ñu yàgg cité en matière de transparence ak organisation et professionnalisme ci ay élection dañu am tradition élection loo nekk nekk ci nguur nañu respecter volonté peuple parce que du candidat bii du candidat bële c'est le peuple souverain qui mhm, décide mhm, mhm. volonté population bi peuple bi moom mooy volonté de changement et aujourd'hui mënuloo nekk minorité ci réew ni man maay gouverner man maay jiite majorité bi et lii am tey jii ci élection présidentielle yi feeñoon na ci législative yi ba mu feeñee ci législative yi la ñu ne ah bu ñu wutul ay pexe de caaf xam si la ñu tëgg seen cinquante sept pour cent yooyu commencé ko dugal ci xelu nit ñi di ko gëmloo nit ñi moo tax mu naan euh, tombeel ay gaaf lu ñu yàggoon di wax la bëgg gëmloo loolu cinquante sept pour cent yi maintenant pour dëgëral loolu aussi ci biir xelu nit ñi ñu ngi naan cinquante sept pour cent yi sax mu ngi yokk bay jëm ci ay soixante pour cent mais mënta nekk c'est pas possible bu nombre d'électeurs yi ñaata nombre d'électeurs moo am ci réew mi mais yow li ngay wax mun ta nekk ci ci ci ay chiffres nga ko teg ci ay tendances nga nekk. mais s'il y a quatre quatre millions d'électeurs ah. par exemple mais pour nga am cinquante cinquante pour cent il faut nga am deux millions d'électeurs mhm. yu la voté tout à fait. te wax naa la fii département yi ëpp solo yi nga xam ni opposition bi moo ko gagné. Mhm. fan la ñu mën a jaar ba génn lu lu mel ni loolu am. d'accord ok et looloo tax moo wax ay. préfabriqué. d'accord parce Merci que beaucoup. am naa ko sama machine. Mhm. am na ay chiffres yu joxe partout. Mhm. mais dëppoo la chiffres yi nga xam ni moom mooy chiffres yi aw yoon. d'accord d'accord euh, am na loo ci loo loo xam ni wax nga ko muy lu jëm ci euh, image yi mu lay wax image yooyu moom am na sax lu mu ci junj junj na ci ne bëgg nañu aussi ñu annuler fi nga xam ni foofu lañ ko amale loolu itam mun nañ ci dem ci loo xam ni mun na wàññi seen ay pourcentage jombul. na ni. ak fu mu mën a féete fu mhm. nekk ku amul fukki at ak juróom-ñett ni ko constitution bi waxee waaye nag nañ def attention. mais photo yooyu moom bari na ñu ci gis moom ci internet. kenn mais kenn bari na ci yoo xam ne kenn mënta xool vidéo ba ci photo aussi. kenn mënta xool nit te vi ay atam man yàlla rek moo tax may wax dama ni ak boor bu mu mën a féete ku voté te amoo fukki at ak juróom-ñett ñu wane la mu doon dëgg ndax aussi montage yi. lépp day am mais dama ni bu dee loolu am na jaaduwul man na ànduma ci président Macky Sall ànduwu ci waaye li ma bëgg it ñu xam ko mooy benn dafa am wax lu am solo mooy euh, dañ ni ñoom am nañu ay zone yoo xam ni amuñu fa représentant mais ñoom loolu mooy li daf leen a disqualifié parce que ku bëgg a nekk président de la république mais doo président wu Dakar rek doo président wu Thiès rek doo président wu saint wi da nga supposé être le président de tous les Sénégalais yow nga bëgg ni da bëgg nekk président wu tous les Sénégalais. c'est pas forcément nga am moyen aussi. mais mais nga am nekk bëgg a nekk président te doo am moyen aussi. mais mais mais attention. parce que nga bañ a suivre aussi. waaw Pape Ngagne. dama ni dama ni ma ni dama ni. en 2012 dama ni campagne yi ñu gis nii campagne même campagne campagne yi ñu gis nii campagne bii ñu gis <laughs> amu ci benn candidat buy wax problème moyen ndax gis ngeen li ñu déployé. dama ni wër nañu Sénégal joxe nañu ay moyen ba léegi sax loolu diggaguñ ci d'ailleurs loolu beneen débat après ndax boo nekkee fonctionnaire wu cinq ans mu ne ku nekk xam na man dama dul bëgg bëgg bañ a dama dul bëgg a wax ci supposition parce que bëgguma am euh, nu mu tuddati euh, euh, nu mu tuddati wax joo xam ni bu ëllëgee dama koy fekk sama bàmmeel te wóoruma waaye ci sama gis su doomu aadama ñëpp gis ko kenn mënta wax ni candidat yi muy wax amuñu alal mais dama ni. càggante weesuwul nga bëgg ni da bëgg a yor Sénégal gépp ni am na zone boo xam ni aw ma fa représentant mooy tey ñoo ñooña mën nañu xalaat ni que ni boo fal woon danga leen fàtte loolu seen une parenthèse mën na am sax xëy na oubli la wala càggante wala seenu cuune mais ba tey loolu c'est pas un problème ba tey ñu ni encore une fois que. sànq ba léegi danaan sànq ba léegi sànq andi indi jox ma jox ma man maa koy wone man maa koy wone sànq ba léegi dafa nii sànq ba léegi dafa nii maanaam naka la naka la Macky amee naka la mën a amee mag Macky mën a amee 60 pour cent loolu du laaj xam nga lan mooy laaj parce que Sénégal nañu def attention entre li ñuy wax confusion bi ñuy wax entre euh, l'opinion entre l'opinion et l'électorat te loolu moo daloon Ablaye Wade en 2012 yéen a ngi fàttaliku bi mu naan romb naa Macky sàll ak ñetti otoom électorat segment opinion beneen segment la opinion tey boo tëggoon fii tey musique woo sama ñoom doom Wally Seck woo ñoom Youssou Ndour woo ñëpp ñëppay ñëw waaye dara. xamalu la xam ngeen ko loolu xam ngeen. mais ñun ñoo ko gën xamal tax man la xam nañ ko. moom xam ngeen ko baax na bàyyi ma jox la beneen axe d'analyse dama leen di wax dama leen di wax beneen axe mhm. boo xam ni xam loolu moo tax ah, mais photo bi nga laaj ñu jox la ko xool ko maa ngi koy xool nii dama non da nga ma mënumaa wax di xool dinaa ko xool ndax man maa ko laaj mhm. man lu ma leen wax ñeme naa ko euh, gis nga euh, am na beneen axe boo xam ne bu ñu ko tegaloon mais communauté scientifique da koy nangu mais teguñu ko xam nga mooy ban mooy parrainage yi ñun parrainage man ci ci kóoluteg Macky Sall ak kàttanu yàlla man la waxoon ñuy déposé parrain bi ñu ñëw ci sama service ñun am nañu 4 millions 17 mille ak ay numéro téléphone ni nga ma joxe sama téléphone nii noonu laa lay joxe sa téléphone ak ay numéro téléphone yeeg tur yeeg parrain yi mais yemuñ ci loolu dañ koo segg bañ ko seggee seggaat ko seggaat ko ba segg ko 3 millions mais loo ciy segg. 3 non dañ ciy segg ndax ñun xam nañ ni que ni waaye Pape. waaw ah, damay laaj rek aussi. waaw non nga jur njaboot. Eh. yor ay doom. et puis ban exploitation mais defal ndànk waaw defal ndànk dama lay wax. boo ma laajee loolu yëpp naa la ko wax. mën nga jur njaboot mën nga njaboot. te jukko ja nga am duñ ko am. am na ñoo xam ni ci comme ci seen camp comme ci camp wu Macky Sall bëgg nañu wone seen xarañ ba def loo xam ni seen njiit laaju leen ko. Mm-hmm. loolu c'est sénégalais na ngeen ko nangu. Mm-hmm. man du ma wax ni ñi baax ñu ñëpp ci ñun lañ féete ñi bon ci yéen lañ nekk ci ñëpp ay sénégalais lañu. Mm-hmm. looloo tax waral segg bi ba ñu seggee ba segg ba seggaat. trois millions cinq cent et quelques yoo xam ni ñoom la ñuy wax ay parrains qualifiés am nañ ko donc ñu ñu ni defar rek sa calcul mathématique analyse scientifique. loolu sax passé nañu ko mais loolu bu ñu ci revenir woon rek. loolu loolu xam